kooku dafa am juróomi xaaj ci langue arab sooy ab tur mën naa laaf bu laafee danga koy nasab la ngay woo bu laafee danga koy nasab loolu mooy munaada la ngay woo su fekkee dafa niroog lu laaf niroog lu laaf mooy lan moy am lu jokk ca la ngay woo di tënk maanaa ba maanaam di ko jagleel xam nga tey boo waxee kitaabun téere kitaabullahi téere bi yàlla bi léegi da ngaa jagleel téere bi yàlla rek waris ku dul moom naka noonu it boo yaa musaafiran yow mooy aju tukki ila Sénégal jëm Sénégal jagleel nga tukki Sénégal rek waris ku dul moom loolu mooy lu niru lu laaf lu am lu jokk ca maanaa ba maanaam maanaa bu jokk ca la ngay woo eh, diko ko tënk dégg ci loolu diko di ci maana boobu yaa taaliyaan yow mi aji yéeg mën naa yéeg lu ne waaye boo ne aljabala doj wi tënk nga yéeg gi ci doj bi kon mënaadaa bu wala mu niru lu laaf te mooy maanaa jokk ca di ko tënk ca boppam mënaadaa dañ koy nasab ñetteel ba mooy mu nekk nakira ngay woo nakira waaye nag jubluwoo ci kenn dan nga koo nakiraal mutlaqan kooku dañ koy nasab ni ki yaa rajulan yow ab góor ku ñëw baax la yow góor rek nga woo kooku mooy nakira xeeru maqsuuda dañ koy nasab kon munaadaa bu laafee wala mu niroog lu laaf te mooy ñu tënk ko ci ab maana parce que lu laaf dañ koy def taxsiis dañ koy tënk ci dara mu daaf dañ koy tënk ci mu daaf ilay bi da ngaa woo dara laafut tënk ca dara kooku shabihun bil mudaaf la dafa niroog lu laaf ci tënk gi ñu ko tënk kooku dañ koy nasab munaada bu dee nakkira la waaye jubloo ci kenn dañ koy nasab kon ñetti anam yi dañuy nasab munaada mooy la ngay woo bu laafee wala mu niru lu laaf wala mu nekk nakkira xeeru maqsuda amma munaada su fekkee nakkira la waaye da nga cee da cee jublu su boobaa mu mujj nekk maarifa sax ni ki yaa rajulu yow góor gi nga jublu si ab góor guñ ràññale góor guñ xam nga ci jublu kooku nakkire nga woo parce que rajulu amul la am la xamuñ kan la waaye nag ba nga ci dugalee dégg nga jublu si ak jëmm kooku dañ koy tuddee nakkire maqsuuda nakkire buñ jublu dafay mujj sa nekk maarif ndax yenn yi bu ñuy jàng xeetu maarifa yi danañ ci boole munaada boo xam ne nakkire la buñ jublu loolu maarifa la boobu dañ koy binaal ci lañ ko war a i'rab bul wax dañ koy binaal ci damm dañ koy binaal ci lañ ko war a kon booy tur woo xam ne nakira la waaye eh, ab jëmm juñ xam nga ci jublu wala mbooloo muñ xam nga ci jublu dañ koy binaal ci dañ ko war buñ ko war a i'rabee damm ni ki jëmu taksir la nga binaal ko ci dam ni ki yaa nisaa u yéen jigéen ñi kooku jëmu taksir la moom ñu la damm buñ ko binaalee ci mm, mm, ɓuree dañ ko warno érabe ci waaw nga binaal ko ci waaw nek yaa muslimuuna yéen julit ñi ay julit yi xam nga ci namu foofu mu naa daala nakira maqsuuda buñ jublu moom ñu wala dam moom ñu wala waaw ngay wax dañ ko binaal ci waaw hmm? kon mu naa daa bu fekkee nakira la waaye danga ko ci jublu danga ci jublu ab jëmm ju ñu laa ñu ne dañ koy binaal ca lañ ko war a érabe bu dee maanaga i'raab alif la nga binaal ko alif bu dee maanaga i'raab waaw la binaal ko ci waaw bu dee dàmm la nga binaal ko fekkee ne da ngay woo tur wuñ xam alam xam nga alam maarifa fala boo koy woo it moom it dañ koy binaal ca lañ ko war a i'raab yaa Muhammadu kooku Muhammadu munaada la marfon bi dam mam ñu naa la dam bi lay bëgg wax ñu binaal ko ci dam parce que boo ko doon i'raab dinaan marfon bi dam yaa Muhammadaani Muhammadaani munaada la mabniyun alal alif parce que boo ko da naan marfon bil yaa muhammaduna yéen muhammad yi kooku munaa daala mabni alal waaw parce que boo ko doon i'raab da naan marfon bil waaw laanu jamo muzakkar saalim juróomi xeetu munaadaa yi ñu am ci langue arab daanaka boo ko ci téere bi noonu rek nga koy jàngaate munaadaa laaf wala mu niru laaf wala mu nekk nakira boo xam ne jubluwuñ ko ci ñetti yëpp da naan mansuubun dañ koy nasab munaadaa bu dee nakira buñ jublu la nga xoo nakira waaye jublu ci ñu xam kooku dañ koy binaal ca lañ ko war a buñ ko doon inrab bu dee mufradu alam la maanaam mu nekk alam boo xam ne laafut niruwul laaf loolu lañ na mu ci mufrad bi ñu waxee mufrad na mu ci ne kenn la parce que yaa muhammaduna mufradu alam la bu dee munaadaa bi la ngay xool luñ xam la pour wuñ xam la bu jagoo ab nit dégg nga waaye laafut niruwul laaf su dañ koy binaal ci lañ ko war a su ko defee ñëw ci amsila yi almunaada mooy la ñuy xoo yaa gi nag mooy xarfu nidaay xaraf wa ñuy wootee al amsila li mooy misaal yi yaa salaaxa diini yow salaaxu diin pourtant salaaxu diin alam la turu nit kuñ xam la waaye dafa laaf salaaxu dafa laaf diin diine alam la waaye comme que laaf na léegi dañ koy dañ naan mansuubu yaa gi xarfu nidaa la la salaax munaadaa la mansuubun bil fatxati al zaahira ala axiri woo mudaafun addiinu mudaaf ilayhi bil kasra loolu rek mooy arab yaa xaarisal bustaani yow mi garde tool bi kooku mun daala waaye mansuubun la ndax dafa laaf yaa baay attiini yow mi aji jaay gën kooku a daala waaye mansuubun la ndax dafa laaf xam nga salaa ak xaaris ak baay ñoom ñëpp dégg nga boo waxoon yaa salaahu yow mu baax mi rek la waaye dégg nga yow firi waaye boo ko ci diine léegi xéwoon ak commerce xéwoon génn na yow diine nga ci nam yaa xaaris tënk nga ko ci bustaan yi garde wut magasin garde wut dara léegi tool lay garde yow muy jaay mën naa jaay lu ne dégg nga waaye dégg nga léegi tënk nga ko ci gën léegi gën rek lay jaay gis nga yàllaa fi ko jagleelee lu niroog lu laafin mooy luñ jagleel ci dara luñ tënk ci dara moom lay joxe exemple ne yaa dégg nga bu ci suuf nañ jël bi suuf parce que moom mooy shabihu bil mudaaf yaa musaafiran yow aji tukki xam nga mën naa am mu tukki dem fu ne nga ne ilaa lubnaan jëm lubnaan kon am na maanaa bu ci jokk boo xam ni daf koo tënk ci boppam comme ni nga aji jaay ci gën noonu nga tënkee aji tukki ji ci jëm lum kese kon loolu dañ koy tuddee shabihun bil mudaaf dafa niroog lu laaf ci tënk giñ ko tënk yaa musaafiran yow mu aji tukki ilaa lublaana jëm lum naan kon yaa ngi xarfu ni daala musaafiran munaada shabihun bil mudaaf ngay wax munaada bu niroog lu laaf la mansuubun bil nga mansuubun bil fatat zahir laaqi ilaa xarfu lubnaana ismun majrurun bi ilaa wa alaamatu jari al fatha li annahu laa yansarif ndax du soppeeku dégg nga lan mooy ismu maa laa yansarif moo topp ci darsu munaada bi danañ ko jàng yaa laahiyan yow mi aji sàggan an darsi walis darso xam nga yaa laahiyan mooy ku sàggan rek mën naa sàggane njabootam mën naa sàggane lu ne waaye nga tënku ko ci ne darsu bi rek la sàggane rek kon loolu sabihum bi mu daaf la ndax dañ koo tënk ca la mottali كون لول سبيه بالمضاف لا كوكيت منصوب غي وقت يعرف ندا لا هي منادى شبيه بالمضاف منادى بني لاف لا تي تنك غن كو تنك منصوب بالفتحه الظاهر الاخر انا عرف جر درس اسم مجرور بعن وهو مضاف هادم المتصل من على الكسر في محل جر مضاف اليه يا دائعا يومي اجي سانك يومي اجي سانكو lu sànku mën naa doon lu ne nga ne kitaabu téeréem kooku shabihun mu mudaaf la ñoo bokk luñ koy inraabe kon munaada su fekkee dafa laaf wala mu niroog lu laaf dañ koy nasab moo tax nga dégg yaakaar na sëriñ bi wax ko ca bayti ne yaa kitaaballahi anta habibi wa xalili yaa xam ko waxee yaa kitaaballahi yow téere yàlla yaa kitaabullahi nga war wax parce que munaada la mu daaf dafa laaf dégg nga waaye nag boo ko waxoon yaa kitaaban li zaydin yow téere bi xam ne zayd moo ko moom kooki da nga ko tënk ci zayd rek kon shabihun bil mudaaf la dafa niroog lu laax boobu it mansuub la ñetteelu xeetu munaadaa ba mooy munaadaa boo xam ne yaa kitaabal karim waaw noonu noonu ko waxee dégg nga gi laa topp ba fàtte ki béyti ba su ko defee noonu la yaa kitaabal karim anta habibi wa وخليل من نون بغي وان جوك اك القران دوسان يالا يالا تافي سن بارك سوغلي بي نيتيل خيت منادا با مو نيك فلي سي كاو مثال ما نيك سي كاو موي نكر غير مقصود نكر بو خامل جوبلو سي كين نيك يا مسرعان يومي اجي غاونتو جوبلو سي سامبا جوبلو سي ديم جوبلو سي كين كيب كوي غاونتو رك يوم مون غاي وخا في العجله نيك نتي ياكام ان ندامه ترچو نيك يوم مي نيكلانتي yàkkamti rëcc rek moo ci nekk yàkkamti mhm. yàqule noonu la ko olof waxee parce que olof nag moom danaan jël ay xikma wala ay ahadis mhm. mag ñi dañ naan jël au lieu ñu ahadis ak yooyu mën naa am gaaw a mokkal wala yooyu mhm. ñu léebal la ko hmm? mag ñi noonu lañ daan def mu ne yaa musri'an yow mi gaawantu fil ajalati nekk na ci yàkkamti an nadaamatu rëccu dégg ba yenn yàkkamti yi ni ngi yàkkamti maye soxna yàkkamte suul néew yàkkamte fay bor yooyu moom du rëccu dégg mhm. su ko defee li ëpp ci yàkkamti rëccu rek lay jur mhm. am na benn e, histoire biñ ci nettali ñu benn nd e, jaam bu ñuy wax find sangam daf ko yónni ne ko dama wutal ma xaru safara dama wutal ma safara daal tubbal ma safara andil ma find bu mhm. demee moom mu gis ay woykat ñuy commencé jëm misra mu ànd ak ñoom xar lañ ko yóbbu xalu safara mu dem foof toog fa at ñëw door a tubb xalu safara ñëw andi <laughs> andi sangam ba mu ñëwee ba ci buntu kër gi muy xaw a daw fakka saru xal ya tuuru mu ne lii la nit ñi di wax yàkkamti yàqule waaye <laughs> mu ne ndeke yàkkamti baaxul yàkkamti yàqule te moom toog na at moo tax arab yi buñ la yónnee wala nga def dara yéex naa ne a but of findin ndax da ngaa bëgg a yéex yéex ak find xam nga boobu moom baaxul dégg mm-hmm. yaa valiman yow mi aji tooñ namuñ ci kenn képp kuy tooñ dugg na si biir mm-hmm. tabassar xoolal fi naa waaqi bi ci mujj ya xoolal ñi doon tooñ fi muj mm-hmm. hmm? dégg nga yaa valiman kooku moom mun naa daal wax ne wax ji jeex na képp kuy tooñ lay wax ba pare nag mu ne xoolal ca mujj anam to ni mujum bahut bogono en rabia arfu ni dal zalim al munada nakra ghayru maqsuda nakra la bun jublut منصوب بالفتحة الظاهرة على الأخير طيب تبصر فيها الأمر فاعل بأن تلفنا واقب جار مجرور هواقب نقدر نكو جار فاسكرهم ال واي لا ينسري خورو يا شامتان يوم أجي ندوك ندوك موي نيو أنا نت أمنا مصيبة منيح xam nga nit bu amee musiba kenn waru koo ndog ndax nattu maanaam watir ka ay yaamunu daawilaa beneen naas loolu rek moo nekk ci àddina ay fan la yoo xam ne yàlla daf koy tourné ci diggante nit ay al yawma laka wa ghadan alayk tey xewal la ci yow waaye suba nattu la ci yow boo nit ki rek xaaral sa bos mu ngi ñëw moom la nit ñi di wax ne wala boog xokkamaaw yi di wax la nit tooñee bul ko jéem a bul jéem a fayantoog moom ndax lam la def yàlla dana ko nattoo ku ko def lu mel noonu maanaam même li ngay def rek loolu ngay góob li ngay ji loolu moom mooy sa meññet kon ndok ndokk baaxut yonentu wax na ne laa tudhiri chamatata li axiika fa yarxamuhu llahu wa yabtaliika bu sa mbokk amee problème bul ko won ne ko kontaan nga ndax soo ko defee yàlla yërëm ko teggil ko ko ba pare teg la ko yow moo tax bo boo ndokkoo nit rek problème yo yow ko am ñaareel ndax yàlla daf ko yërëm teg ko ko dal di ko teg ana sax musiba bu dal doomu aadama lu ci nit di kontaan ana lu koy jariñ jariñul ko dara buri woon feebar moom la ne yaa caamitan yow muy aji ndokk mooy yow muy kontaan ci jafe-jafe nit na daxara naka jamono ji nga yaakaar ni xawaanun waraakoon boo gisee yàlla jël jamono ak li dund ci jamono yëpp def ko ay musiba ci nit ki dafa bëgg nit ki xam ne yàlla rek mooy wéeduwaay moo tax jamono lépp loo nar a wéedu rek yàlla daf lay wan ne la du noonu du noonu du fii du fii jaam yàlla rek moo ko attan nit yàlla rek moo ko attan parce que dëgg-dëgg nit ku nekk rek am ga soxla yoo xam ne daf lay wóor na ne kenn mënul ko gàddul yàlla rek moo attan doomu aadama moo tax mu def jamono di workat maanaam jamono yàllaa ko bindee mënu ci dara ci li ko yàlla sant lay def mu bëri laa wax ne yow miy ndokk sa mbokkam julit bul bul yaakaar ne yow it jamono daf jàmmal de déedéet ndax jamono bii nga sukkandiku woorkat la hmm? li ngay ree nit ki mën na la ko teg yaa shaamitan nama inrabe yaa zaliman noonu ñu koy inrabe inna daxara inna daxara inna la xawaan mu ngi noonu kon su ko defee munaada bu fekkee dafa laaf wala mu nirulu laaf wala mu nekk nakkira boo xam ne jubluwuñ ko dafay nasab ñetti anam yi dañuy nasab kon sooy woo xoolal li ngay woo bu dee dafa laaf nasab ko bu dee dañ koo tënk ci dara kooku may lu niru lu laaf nasab ko su fekkee nag luñ xamul la waaye jubloo ci kenn nasab ko amma nag bu dee nakira la waaye dañ koy jublu ab jëmm yaa rajulu yow góor gi kooku góor gi nga wax rek moo moo war a ñëw foo ko waxee rek ñoom xam nañ ban góor ngay wax ko maarifa la safar far nakira boo ko jubloo day nekk maarif kooku da koy binaal ci lañ ko war a bu dee tur wuñ xam la ni ki Mouhamed Ahmed ak suñ mboolem tur yi yëpp alam la waaye nga woo ko soo ko woowee it bu dañ koy binaal ci lañ ko war moom lay jox exemple ne yaa rijaalu yéen góor ñi xam nga rijaal nakira la waaye nag daa am góor yoo ci jublu atqinu rafetal leen amaalakum seen jëf yi dañ leen woo pare digal leen yaa ngi xarfu ni daala rijaalu munaadaa la mabniyun ala dammi li annahu nakira wala boog rijaalu munaadaa nakira maqsuuda munaadaa nakira buñ jublu la mabniyun ala damm askanu fil amr la yaakaar naa war ngeena xam ci liñ ko binaal ndax ci saaram ci afal xam see la xam ngeen fa'il ba xam ngeen mafoonum bi ba ak kum gi nuñ ko arabiy kon jërul ma ci jaar dégg gis nga dañ ko binaal ci dam parce que jëmu taksir bu arabé man nga rafa rafaa dàmm lay doon kon boko ko nakira maq maqsuda boo ko xooyee nga dañ koy binaal ci dam comme ni nga xam buñ ko rafa ci dam lañ koy rafa yaa fatayaani yéen ñaari waxambaande yi laa taabasa bu leen fo bil azhaari ci fleur yi yaa ngi xarfu ni daala fatayaani munaada nakira maqsud la ñaari waxambaande yi xam nga ci jublu da nakira buñ jublu mabniyun alal alif parce que musanna bu inrabe maanaam gaa rafaaga alif lay doon kon su fekkee boo ko wooyee euh, dañ koy ci alif euh, wan nuuni awad nañ tamit fii mufrad yi su ko defee gis nga kon fatayaani ba mu nekkee munaada lañ woo dañ koo binaal ci ba ko doon irab lañ ko war a irabee bu rafaa woon maanaam ga rafaa ga alif lay doon kon bon ko dañ koy binaal ci alif kooku yaa laaxibuuna yéen fokkat yi istariixu noppalu leen ñooy baat yooyu ak laa tax baza bil azhaari jërul ma koy irab parce que romboon nañ ak yaa laaxibuuna yéen fokkat yi ay fokkat yi ñu xam nga ci jublu pourtant baat bi nakira la waaye nag léegi maarifa la parce que daa am ñoo ci jublu xeet wii rek nag mooy nekk maarifa ci munaada amma mm, te yaa bàyyi tiin loolu taxu nekk maarifa ba léegi baat bi nakira la di la woo nga ko yaa musaafir ilay lum naan ba léegi nakira la yaa zaaliman tabasar ba léegi nakira la waaye munaada nakira laaxibuuna munaadaa la mabniun ala nangam parce que ba laaxibuuna boo ko nee irab jaa na laaxibuuna fokkat yi wala ay fokkat naan faayilun marfuun bil waaw kon tamit boo koy binaal tamit ala waaw kon munaadaa bu dee nakira maqsuda dañ koy binaal ca lañ ko war a irabe bul wax dañ koy binaal ci dam dañ koy binaal ca lañ ko inrab ndax léegi maanaam ay rafaag maanaam dañ koy binaal ca la maanaam ay nekk waxal loolu rek dañ koy binaal ca la maanaam ay rafaag war a nekk maanaam ay rafaag bu dee damm ñu binaal ko ci damm bu dee alif ñu binaal ko alif bu dee waaw ko ci waaw demet xalil xam nga tur la buñ xam kooku alam la xasan alam la muhammad alam la alam boo ko xooyee moom it da nga koy binaal ci lañ ko war a ci maanaam ay rafaag ci lañ ko war a inrab koy binaal ci maanaam ay rafaag moom bi la ñu yem يا خليل يا خليل كم لين يا يا خليل خليل دكنا فاعل مرفون بدم كنت من خليل منادى على مبني ولا دم يا حسناني يا نياري حسناني كم لين يا حسناني حسناني فاعل مرفون بالالف كنت من حسناني منادى مبني على الالف يا محمد يا محمدي كن جرومي قيت منادى يو ام تي لانغ عرب بولاف بني رب بولاف نكره بن جبلوه nag ñett yi lañ leen di nasab nakira buñ jublu ak alam boo xam ne laafu niruwul laaf loolu lañ namu ci mufrat alam bu ñu waxee mufrat fii rek mooy lu laafu niru laaf waaye namuñ lu nekk kenn parce que xasanaani Muhammad Muhammaduna nekkuñ kenn jëmm lañ xasanaani ña musanna la kon nakira maqsuud ak mufradu alam mooy alam boo xam ne laafu niruwul laaf yooyu dañ leen di binaal ci seen mandargaay rafan البحث لي موي غتب اذا رنا بن بغي ان نطلب ني ساك اقبال احد جبل كان علينا تي نون نادينا ودرنك هو بذكر اسمي تي تودو تورم او صفتي ولا ملوم بعد كلمه يا غناو باتيا بو بغي هو كين دونك هو تي تورم ولا ملوم waye yaa nga koy xooyee wala mbokk yaa yi parce que am na yeneen ñuy woowe ni ki haya haya alif sax day woote ni ngi ngi allah arab bi ayo sama borom Muhammadu e yow Muhammad ba léegi woote la yooyu xëy na yeneen téere dinañ ci yaatal yeneen xaraf la ñuy woote fa qul naa wax nañ ko maa fi amsilati mutaqaddima comme ci misaal yu jiitu yaa Salaha diin kooku tur la wa yaa xaarisal bustaani yow mi garde tool bi kooku mela la waxaluma jëraa demit yooyu sama dañ tudd alismu tur baada yaa gannaaw yaa muy munaada isim bu ñëw gannaaw yaa mooy munaada amma yaa waa yaa nafsuha boppam fatu sama dañ ko tuddee adaatu nidaa yi jumtukaay woote yaa gi moom mooy xarfu nidaa wala adaatu nidaa yi jumtukaay woote ani na say na ni waaw wa mislu yaa comme yaa la ayaa ak wa hayaa wa ay ak ay wa fi nga dugal yaa muhammadu wala yaa xalilu wala hayaa xalilu wala ay ay xalilu wala a hamza mooy alif rek yooyu yëpp xarfu rek mbokk yaay lañ bokk wasaata amal naa buñ senantare almunaada fi la am ci mutaqaddima ci misaali jiitu wajët naahu fekk nañ ko yaqaw muy tàbbi ala ahwaalin xamsin ci juróomi xaal foofu moom fi taayifati ula ci kuréel gu njëkk yi mu daafu dañ koo laaf ilaa ismin baadahu ci isim bi ci gannaaw munaadaa yu la dafa laaf fi taayifati saaniya ci kuréelu ñaareel ga mu tasil dafa jokk bi dara min tamaami maanaaw yooyu mottali maanaam maanaam كما يتصل كم نمجوك المضاف مضاف بالمضاف إليه مضاف إليه ni mudaaf ilay di tënkoo mudaaf ni muy tënkoo ci mudaaf ilay kuréelu ñaareel gi munaada gi noonu la tënkoo ca la jokk ci moom wala zaag loolu tax yu sama dañ ko tuddee shiba shabihan aji niroog bil mudaafi ci lu laaf nga ne ko yokk ma leeral mu ne fa innaa naka ñun idaa qul naa bu ñu waxee masalan ci misaal yaa musaafiran yow aji tukki wa sakkat naa ñu noppi لم يتبين دولار لسامي ناجي ديجي المعنى ما ناجي كامل بومات فوا ام نكرا غير مقصور نيام خمون واجي فمي توكي لا لان سفر ندخ توكي قد يكون امان ملك الى بقاع جيم تي باك شتا يو تقليكو كون تنكو مسافر جي فن فاذا قلنا بنوحي الى لبنان جيم لبنان فقد اتممنا موتل المعنى معنا بو خصصنا ونيو جغلل كو لبنان كسم ممتكما كما يخصص كم من جلالة المدافع مدافع بمدافع ليه مدافع ليه من جلالة جايكت بشيغن كسي من لن جلالة أجي توكي جي لبنان كسي دولارة نتلقى شبيان بيل مدافع هو ممنا داغا في تايفة السالسة شكو يولي نتلقى نكرة غير مقصود لا نكرة لبو خمني جبلون كا أما أنه نكرة لتحنينا نكرة لا نغفل أنه نحمم لا يفهم دون ديك منيش مم معين لنجران جلالة ما نعم قمون كان جاي وخ yaa zaliman yow aji tooñ jëre lañ ci tam kenn du kenn ko moom ñëpp ci dugg kuy tooñ rek yaa ngi si biir wa amma annaha waaye ne moom xëy na maqsuudun maqsuuda jubluwuñ ko fa leen an naa nag ndax ñun yene naqul bu ñu waxee yaa musiran yow aji gaaw fi nga jëre ci nekk na ci yàkkamti anna daa ma tëri ci masalan ci misaal daan wajjuhu duñ jublu al xitaab wax ji ilaa insaani jëm si doomu aadama ko bu jegoo jubluwuñ ci kenn wala naqsudu jubluwuñ bii ci moom waaxidan kenn duna axawais keneen ñëpp ci dugg moo tax ñu tuddee ko nakira xayru maqsuuda nakira boo xam ne jubluwuñ ko way na maa nun xii naka dañuy sànni annus ala biir am man mooy aji matale te kulli man yen taxwu ñel képp kuy jëriñu bii ci moom loolu mooy nakira xayru maqsuuda mooy kuré mën nga cee gis sa bopp ku yore mel woowe yow lay wax ak ta fi taifati rabia waaye ci kuréel ñeenteel gi fal munaada munaada gi nakiratun nakira la maqsuudatun buñ jublu laanal mutakallim mu aji wax ji yéen yaqul jëme mi mu wax yaa rijaalu yéen góor ñi arqin rafetal leen amaalakum seen jëfi yaqsuru da jublu rijaalan ay góor maxsuus la ñu jagleel yu wajjihu dana jublu ilam jëm si ñoom xitaabuhu ak waqanteem dégg nga kuréelu ñeenteel gi nakira maqsuda moo ci nekk boo ne yaa rijaalu atqinu amaalakum ay góor yuñ xam ñoom ngay wax ak looloo tax ñu tuddee ko nakira la parce que baat bi amul al rijaalu moom ay góor lay firi waaye ba ci jubloo ay nit nag nakira مقصود لاي جبلو داي موجي نيك معرفه رك وما في تافر الخامسه واي شكر الجوره ملغا فرمنا دا منا لا جعلمون عالم لا موي ترو كين جيغولا مفرد مفرد لا مفرد نك لنج سنم موي لا فنيرو لا باسكو مفرد لي ريك نيوخ سي نحو فك كين لي لي فيري لي ريك نم ني واخ مفرد فك لنج جبلو موي لا فوت نيرو لو لا بو ديغي ني خبر مفرد خبر غير مفرد خبر مفرد موي بو خامني دو جمله déedéet bu euh, waaw du jumla du sibu jumla loolu mooy xabaru euh, mufrad di rekk jamu sax mufrad lañ koy tuddee waaw boo xam ne du mufrad nag mooy boo xam ne jumla la wala sibu jumla kooku moom du mufrad kon foofu mufrad lañ ci na mun na muñ ci kenn wala ñaar fii tamit noonu la bu ñu waxee loo xam ne laafut niru du laaf loolu lañ ci na mu budul mufrad nag budul mufrad nag mooy niru du laaf dégg kon ful munaada munaada bi si juróomeel bi alamul mufrad la alam la bu wéet ay lu ma namm ci mufrad xeyru mudaafin laafut laafut wa xeyru shabihi niruwut niruwut bil mudaafi wa xeyru shabihi niruwut bil mudaafi ci lu laaf wa za taamalta boo senantalee awaaxiral munaada mujjëg munaada yi fi jami axwaali saabiqa ci mbooleem xaal yi jiitu wajattoo fekk fi axwaali salaasi si ñetti xaalu njëkk yi mooy ba mu wala mu nirulu laaf wala mu nekk nakira xeyru maqsuda fekk nga ko mansuban muy nasab daayiman ba faw foog fana fekk ci langue arab dañ koy nasab fa fil xaale ni ci ñaari xaal yi alaxirtan yu mujj yi mabniyan ñu binaal ko alama yur fon ci la nga xam ne dañ ko rafaa bii ci moom dañ koy binaal ci lañ ko war a rafaa maanaam ca maa gaay rafaa ga dañ koy binaal fisa kaana bu nekkee xabla ni daay njëkk woote gi yur fon dañ ko rafaa bi damm ci damm bu ne ñu binaal ko la damm ci damm fisa kaana bu nekkee yur fon ñu di ko rafaa bi alif ci alif li andoon ndax moom musanna musanna la bu nee ñu binaa alif ci alif li njëkk yaaga wasa kaana bu nekkee yur faw ñu koy rafaa bil waaw ci waaw li andoon ndax moom joomu muzakkar saalim la joomu muzakkar saalim kooku bu nee koy binaa al ci waaw su fekkee dafa nekk dégg nga nakira maqsuda wala mufradu alam kama comme ne moom waalihun lu leer la waadihun lu leer la fil amsilati ci ci misaal yi dégg alqaida lii moo di tënk bi almunada munada ismun darañ ko tudd baada yaa gannaaw yaa aw ihda axawaatiha wala lenn ci mbokkame talaban ngir sàkku li iqbaali matluulihi ñaal jublu seeg dégg nga la muy tegtal maanaam la ngay sàkku mu jublu si munaada tur lay doon ñu di ko tudd gannaaw yaa wala boog loo xam ne dafa niroog yaa comme ay ay ay wala amza wala hayaa wala ayaa luñ ci jublu pour yow mi ñëwoo nga ñëw mat loolu yaa gi la yaa gi tegtal mooy xoote kon yow mi ñëwoo ñoo bëgg nga ñëw المنادى ينسب دين نسب المنادى منادى كموي تروني و اذا كان ميك ينسب دين نسب المنادى اذا كان ميك مدافعا للاف او شبيها بالمدافع والمنير للاف او نكره غير مقصوده ولا منك نكره بو جبلو نكو منادى بلافه wala mu nekk lu niroog lu laaf wala mu nekk nag xeeru maxsuur dañ koy nasab wayum naa danañ ko binaa alaa maa yurfamu bii ci dañ ko war a rafaa idaa kaana bu nekkee nakara tan maxsuura nakara buñ jublu aw alaman mufradan wala mufradu alam wax naa léegi lan mooy mufradu alam lan lañ la mu ci mufrad gi alam moom jàngoon nañ ko mufrad gi mooy laafu niroog lu laaf wala muraad li namu bi mufrad ci mufrad xunaa fii maa mooy li nga xam ne lay sa nekkul mudaafan di lu laaf wala shabihan bi mudaaf niroog lu laaf kon foo dégg ci tuubu ñu woo ci arab rek boo xoolee da nga xam ban catégorie lay dugg ci juróomi catégorie maanaam ban xaaj lay dugg ci juróomi xaaj yi tamaarin ayin ràññee fi jumle atte jumle yi dikk nawal munaada xeetu munaada ga wa bayin leeral al mu'rab minhu la ñuy i'rab wal mabni ak la ñuy binaal la ñuy i'rab mooy nga xam ne koy nasab yi ñuy binaal mooy nakra xayru maqsuda wala mufradu alam wa nawul i'rab ak xeetu i'rab leeral ko binaal ak xeetu binaal axiisu xettali leen albaayisina way ñàkk ña yaa ahlal muruaati yéen ñooñ mbañ ruus yéen ñi nga xam ne da ngeen am lu ngeen ruus hmm, ku rus ruus ku am lu rus ruus ku bëggutu rus al muminu nag miraatu axi julit mooy seetu mbokkam li nga xam ne bu la daloon nga am gàcce rek bu dalee sa mbokk war nga am gàcce moo tax ku mën a xettali ku nar am problème rek dégg nga ju dégg nga war nga koo xettali loolu mooy julit moom la yonent junjwaat ci ba laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm yàlla lu mooy lam bëggal mbokkam mu bëggal ko boppam parce que gëm gu mat mooy ku dem ba génn ci ay bëgg-bëggam saxal bëgg-bëgg yàlla loolu mooy gëm gu mat fekk sa bakkan mu ngi wuteeg yàlla ci dara rek sa gëm yàlla matagut sa doon jaamu yàlla yi doonagu dëgg ci yow di la woote nga ko waaye boo demee ba sa bakkan amatul benn cër ci yow yow li yàlla bëgg rek nga bëgg yow yaa gëm-gëm gu mat ku mel noonu nag wax dëgg yàlla mbaax fu mu feeñ rek baax na moom bëggul boppam mbaax la bëgg moo tax fu mbaax mën a mu dimbale ko moom hmm? amaa koo xam ne mbaax gi bu feeñee ci yow nga kontaan bu feeñee ci keneen nga mer yow mbaax sa bopp nga bëgg dégg nga kon yéen ñi am mbañam ruus dimbale leen ñi am jafe-jafe xarabat sona chamsu jant bi yaa saa imiina yéen way woor ya dégg nga bàyyi leen xel nag yaa saa'imiina yaa ahlal muru'aati gis nga yaa ahlal muru'aati yéen bañ a uus yaa ñu woor <laughs> namul ci kenn nag yéen ñu woor dégg kon xam ngeen si ban catégorie la dugg ci xeetu munaadaay waaw ah, bu fekkoon ne xam nga ne dafa nekk ñuñ jublu konoon konoon da koy hmm, bañ ngeen yaakaar ne nakira xeeru maqsuuda foofu am lu ci jokk comme ya wax yaa saamitan inna dahra xawaan boo woowee eh, tur te jubloo ci kenn rek nakira xeer maxsuud yaa saa yi mais yéen ñu war kooku benn anam la mën a am ci arab te mooy dañ koy arab waaw defe xam ngeen ajib wuyul duwaa yi sama ñaan ayaa mujiba duwaa yi ay yow muy wuyu ñaan ayaa xarf ni daala parce que mën ngaa wootee yaa mën ngaa wootee ayaa xus jëlal bi yeddi kan bi duwaa faay ci ñuy kon bii xam ngeen ban xeet la yaa yéen ñaari seede yi yaa shaahidaani yéen ñaari seede yi war nga xam xam nga nakira xeyru maqsud ak nakira maqsud yi wala wala boog <laughs> eh, dégg nga eh, lañ ko binaal ma la koy xamal bu dee nakira toujours moom day na sam rek waaye nag bu dee loo xam ne buñ ko inrabee dàmm lay doon eh, yaa bu nasabee yaa nga fay gis waaw waaye nag bu dee nakira maqsuda la moom boo xoolee dañ koy binaal ca lañ ko war a rafaa toujours yaa shaahidaani kon xam nga ban catégorie la bokk bokkut ak yaa saayimiina boo waxoon yaa shaahidayni nag ñu xam lan la bëgg a wax xam ne jubluwul ci ñenn képp kuy seede dugg na yaa shaahidaani nag xam nañ waaw parce que tamrin bi dafa xawoon wuute am ci yi tuuti moo tax ma taxaw si waaye nu ma ko waroon jàll ak yàdd ishada seede leen bil adli maanu ndax boo seedee fii ci àdduna ko seede waat ci àllaaxira waaw yàlla nag moom wa damay wax ke kenn ñemoo ko dañoo jàkkaarloo guutam moom rek ku ñemoo gaynde daal ñemoo yàlla ku ñemoon musibaay àdduna ñemoo yàlla dangaa jàkkaarloo guutam moom kon comme que nit ki lim seede fii dana ko seedewaat na seede ci maandu an ci fu na ngeen atteel dëgg almasluma kañ tooñ ki yaa qudaatu yéen am dif mooy na nga ko jox aqam na ko jox atteel dëgg kiñ tooñ ki atte leen ko dëgg yaa xudaatu ee eh yéen attekat hmm. kon am na ñu muy wax ak tama xel defal nànk yaa naazilan yow mi aji wàcc fan ko tënk mi ne jabari ci lañu ralaasi nam laa al xayawaana xayawaan bi yaa fariidu yow fariid fariid tur la waaye xam ngeen fu mu dugg ban catégorie xusu jël leen jawaisakum seen neexal yi yaa faizuuna yéen ñu texeñi ah, kon xam ngeen fan la Eh, xam ngeen ndax am na ñu si jublu wala amul ñu si jublu bu fekkoon amul ñu si jublu dana yaa faay siina juudu tabeleen yaa ahlal fadli yéen ñooñ ngëneel ku nekk nag ngëneel yi yàlla jox rek ci nga mën a tabe yàlla jox na la daraja tabel sa sa daraja mooy eh, darajaalal koo xam ne yaa ko ëpp daraja foofu dégg nga yàlla na la alal tabel si alal yàlla jox la wilaayatu wilaaya tudde moom nañ cee tawee xanaa yar nit ñi waaye wilaaya moom jël ko di ko joxe mënul demee noonu wilaaya <laughs> moom foo nga liggéeyloo nit ki mu door ko am yàlla jox na la xam-xam nga tabe sa xam-xam ku nekk li la jox ci loolu nga mën a tabe asrij na nga na nga tegal alxisaana fas bi yaa xulaamu yow xale bi teg mooy la ñuy teg ci gannaaw fas bi door cee war dégg nga mm, yaa musaafiruuna yéen tukkikat yi te ahabu préparé leen yaa kon su ko Euh, xoolal xeetu munaada yi nekk foofu daan tegal <clears throat> aada axrufi nidaa lenn ci axrufi nidaa yi xabla asmaa yi taariye njëkk isim yi di dikk waa xeq nga yéegi kul ismin bépp isim bi jumlatin ci jumla munaasibatin bu dëpp su ma bayin nga leeral naw iraabi xeetu iraabi aw binaa yi wala xeetu binaal ba dégg nga xarafu nidaa yi nga xam mooy alif aya haya ak yooyu ba mu jeex ak hamza dugal leen njëkk tur yi mu bëgg a indi mm-hmm. nga xool changement bi ñu am ci wàllu masque nga def ko ko bu dee dañu a inrab la nga nga wax xeeti inrab bi lan la bu dee dañu war nga wax xeeti binaal lan la xam nga nag bu ñu dañ koy inrab nekku leen toujours fata lay nasabee lu ñuy inrab mën naa nasabee fata mën naa nasabee yaa mën naa nasabee fata alif mën naa nasabee alif mën naa kasra dégg nga mën naa nasabee fata alif kasra yaa xasaf nuun yooyu mooy xeeti yooyu ay nasab li nas bi xamsu alaamaat nasab am na juróomi maanaam nag dañ ko jàng ci àjjurum fata alif kasra yaa xasab nun léeg-léeg baat bi fata baat bi nasab fata nga fay gis léeg mu nasab fekk alif nga fay gis léeg-léeg mu nasab fekk kasra nga fay gis léeg-léeg mu nasab fekk yaa nga fay gis léeg-léeg mu nasab fekk xasab nun nga fay kon buñ la waxee boo munaadaa day nasab bu laafee ca la mu war a nasabe dégg bu ñu dañ koy binaal it buñ koy binaal moom ca la mu war a mën a gaay rafaa rek ci lañ koy binaal ndax boobu jotee wut kon mun naa daal du jar dégg nga wala abul fadli borom ngëneel ajulun aji yàkkamti yaa xool nag loo koy def ajul ndax danga koy def maqsuuda wala xeeru maqsuud murqinun aji xay xare ñaamal wa jëfam abdul xafaar tur la wala boog jaamam aji jéggale ci mujtahidun aji góorgóorlu fi dar si si dar som yaa xool ban la arab ismail shaahiduuna way seede yi mubsiruuna way pasar pasaree seen alal moo ñu seen alal te dërëm boo jël def ko ci lu neexul yàlla rek yàq nga ko gulaamaani ñaari xale yi xaafilu aji sàggan zul muru ati borom bañ ruus xooleen yaa xool nag xaraf wala ni wooye daan tegal munaada munaada munaasibun bu dëppoo fi la maakinil xaaliya ci barab yu weedi mina jumali aate si jumlay dikk wa bañ leer la nawa inraab yi xeeti inraab yi wa binaa yi xeeti binaa yi dégg nga mm, yii dugal ci munaada bu dëppoo bu ci war a dugg si ñu war a iraab nga leeral si ñu ko iraab ñu war a binaan nga leeral si yow nangam laa teg sel bul tayal yow nangam daayil bàyyil alxur wala naxu xam nga naxu mooy nekk ci lay lor ba pare yaakaar ne yaa ngi ci lu lay jëre te lépp lu nekk lu dul lu koy jegeel boromam mu ci lu koy lor di la yaakaar ne ne mu ci lu koy jëre lu lay jegeel yàlla rek lu dul loolu yow nangam irhamu eh, yërëm leen al xayawaan xayawaan nangam yéen nangam kon arixu noppal leen xaylakum seen fas yi yow jigéen ji ardi i nampalal yow laatu amil bul yaakaar bil najaahi ci at mi yow nangam abshiru na ngeen bég yéen nangam kon duus na ci mujj rafet dégg nga waxkuma atte bil adli ci maandu maandu nag mooy kenn ku nekk lam mérito ngeen jox ko xam nga ku sàcc dañoo war dagg loxo bi loolu mooy maandu hmm? leneen lu loolu nag du maandu bi léegi def nañ sàcc tëj waaye du dëgg ku sàcc dagg loxo bi mooy dëgg <laughs> loolu yàlla bu yàlla tëralul du dëgg ak ko mën a tëral lay dëgg mooy la yàlla tëral boo ko teggee rek maandutu kon atte leen ci maandu mooy atte leen ci ni yàlla tëralee laa tasxabu bu leen ànd ak al ñu bon ñi ndax bu yàggee ngeen bon xanaa yàlla musal leen dégg nga xam nga nag ànd ak ñu bon dafay fekk mu woor la la yow mënuñoo changé ci yow nga door koo def waaye duma aadama dafay taassur bil bi zamilihi nit dafay jël ci moromam te du ko yëg da nga ànd ak nit boo jël sax jikkoom doo ko yëg boo jël waxam doo ko yëg boo jël jëfinam doo ko yëg moo tax dañu bëgg booy ànd nga ànd ak ku baax li ko mooy mën ngaa jël ci moom dara loo xam ne yow yëgoon na sax changé na ci yow dara fekk changé na ci yow dara bu yàgg nag ñu bon ñi bopp ñooñu loolu mën a moytu moytu leen ko Cheikh Omar Fouti daan na wax ne toog ci jotaay ñu bon mu ne ni mel mu ngi mel ni euh, ab sondeel ba euh, buñ taal ci barab boo xam ne dafa lëndëm tërës ba pare bëri ngelaw mu ne da gis leer gi dafay dox góos duraat day yëngatu góos duraat di sëgg ba mujj fay dégg nga te mënul leeral barab ba yëpp yow boo nekkee ñu bon mënoo leen jubbanti ñoom ñëpp ndax foofu mbon dafa not dafa lëndëm te seytaane ngi rëngi-rëngil sa gëm yàlla nga naan waaw ma fekk ci leen li ci lii wala ma bañ leen a fekk ci waaw ma def wala ma bañ a def ba sa gëm yàlla lay mujj faaru nga fekk ci leen ci mbon googu ñu nekkee moo tax booy fréquente ñu bon rek booy dugg ci mbon googu doo doo ko yëg loolu waral ñu aay la defee laa tasxabu bu leen ànd ak asraar ñu bon nasaluku ñu ngi leen ñaan alafa jégg mbaalool ma rafet ak njéggal kawin formé salaas jumla ñetti jumla munaada munaada fi kulli minaa ci benn bu nekk mu daafun lu laaf la wat bin maas ala aaxiru mujj ga bi sakkri ci maas ñu ko war a maas kawin formé salaas jumla ñetti jumla al munaada ga fi kulli minaa ci benn bu nekk shabiwun dafa niroog bil mu daaf ci mu daaf wat bin maas ala aaxiru mujj ga بسكر شماس كورمات كون فرما ثلاث دوما يسكن المنادى في كل منات من هناك نكر غير مقصود لك ورد بالماس العقل ومجد بشكل تماس من شماس كورمات كون فرما ثلاث دوما يسكن المنادى في كل منات من هناك نكر المقصود النقم نكر جملة ورد الماس العقل ومجد بشكل تماس من شماس كورمات كون فرما ثلاث دوما يسكن المنادى في كل منات من هناك عالم المفرد لا مفرد عالم لا وخوانا مودلا ورد بالماس العقل ومجد بشكل تماس emas gi nga ko war a maas xaati andi salaa salaam tëdd ñetti misaal lil munaadal mansuub ñeel munaada bu nasab bil fati ci fata xaati andi salaa salaam tëdd ñetti misaal lil munaadal mansuub ñeel munaada bu nasab bil alif ci alif xaati andi salaa salaam tëdd ñetti misaal lil munaadal mansuub bil yaa ñeel munaada bu nasab yaa xaati andi salaa salaam tëdd ñetti misaal lil munaadal mubni ala dam ñeel munaada buñ binaal ci dam xaati andi salaa salaam tëdd ñetti misaal lil munaadal mubni ala alif ñeel munaada buñ binaal ci alif aati andil salaasata amsilata ñetti misaal lil munaada al mabni alal waawi ñel munaada buñ binaal ci waaw jeex na yaakaar naa xam ngeen la mu wax di rek gaawal naa sama laamuñ benn tamrin fi irab na mu li mu exemple bi yaaraa yel xanami yow mi aji sàmm gàtt irab bi mooy yaa xarfu ni daayin moom ñëwal sukun راهي منادى منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه مضاف الغنم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة يومنا إعرابه أعرف إعراب الأمثلة آتي مثال ديك يا ظالمين ينتون كدي awaaqibu zulmi mujj ak tooñ waximatun lu diis la diis la yaa sa biyaani ñaari xale yi alif gi moo lay xamal jublu na ko ci wala jubluwu ko ci na bu leen fo binnaari safara réer yaa ali yow ali laa tatasallaq bul ñolgu ñolgu mooy bul yéeg yaa aliyu laa tatasallaq bul ñolgu al ashjaara garab yi yaa mujhidan e yow mi aji sonal nafsahu boppam dégg nga yow mi sonal boppam loolu loo ci dégg mooy mujhid da ko tënk boppam kon xam nga ban xeetu mun a daal erabal yooyu islam astatuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu